la la la la la la la la la la la la La ilaha illallah La ilaha laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha la ilaha illallah la ilaha illallah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nuy seetaan fu ngeen mën di nekk ci uh, Sénégal ak ci bitim réew nuyu nañ leen ziar leen ginnaaw bu ñu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général de Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi ñu ngi fii ci Hisnul Abrar Hisnul Abrar su ngeen ko déggee daara joo xamante ni Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr moom moo ko sanc taxawal ko fii ci uh, Jolof ginnaaw uh, ranch de Dolly mu nekk euh, daara joo xam ne da taxawal ngir liggéeyal fi yàlla suñu borom di fi jàngale di fi yar di fi tarbiya waaye taxawal fi ay tool yoo xam ne da ciy liggéey liggéey ngir euh, bokk ci ñi nga xamante ni dañuy suqali euh, seen réew ndax bay la fi def chaque année mu fi récolter loo xamante ni lu am solo la. ci wàccaay woowu nag lañ nekk muy wàccaayu nawetu atum 2024 ba tax na Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou woo te fi ruuj ruuj maanaam ngir waajal tool yi. defar ko ba mu set ngir euh, mën a waajal li nga xam ne moom moo jëm ci nawet boobu le moom moo tax ñu ñëw fi euh, tey jii samedi dëppoo euh, le mille vingt 2024 ànd kook mbooloo mu takk lool Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre woote ko bu ngeen ko gisee nii si suñu ginnaaw mu nekk mbooloo moo xam ne bàyyeekoo nañ fu nekk ci Sénégal ngir ñëw teew fii ci Hizbul Abrahar ànd ak sëriñ bi liggéey tool yi waaye liggéey bu ni mel sëriñ bi nag santoon ko waa kër sëriñ Abdou Chakour Fall moom moo tax nag mboolem mbay faal yi ñëw nañ teew ci li nga xam ne moom moo di tool yi cheikh yi kenn desut képp koo xam ne la wëlëre la nga wala soppee sëriñ Bassirou Mbacké moom sëriñ Abdou Khadre ñëw nga ci tool yi donte sori na lool waaye ngir fas yéene wan ko cofeel gi nga xam ne am ci moom feddali kóllëre gi nga xam ne dox na seen diggante waaye fas yéene ànd ak moom liggéey bi nga xam ne ci la nekk saa su ne muy liggéeyal yàlla la maamam ja di cheikh Cheikhul Khadim kon mbokk yi ñu ànd ak yéen fii ci Hisnul Labrar wan lépp loo xam ne mooy bàyyeekoo ci liggéeyub tool yi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre moom dafa woote fii nii ci euh, biir Jolof liggéey bu màgg bii nga xam ne ni sëriñ bi da koo jox sëriñ Fallou mi di ko liggéeyloo mooy ab gor fii ci Thiel Jolof ci daaray Cheikh Mamadou Basar basiir ji ñu ànd ko nag ak mboolem bi yépp nag mu mel ni liggéey bi soññee rek moom moo ci war ndax Serigne Touba bu la liggéeyloo rek daf laa bëgg a ndax daana wax mag ñi ne ku ñëw ci man jox ma sama bopp jox ma sa bopp jébbalu ci man daal di wax ne daf ma bëgg a liggéeyal danaa ko yóbbu ci barab boo xam ne ni danaa ko fa di liggéeyloo barab ba ma ko yóbbu nag di ko liggéeyloo li feeg liggéey boobu mi ngi koy liggéey bu digub sama borom bi egsee muy faatoom ga te liggéey ba yëggut sama borom day fekk jaamub yàlla boo xam ne ba mu ko bindee ba jën jënni jamono defalut yàlla dara mu jël dund kooka jox ko dund ki nga xam ne moom jox ko ki nga xam ne moom la doon liggéeyloo jël faatu ki nga xam ne moom lay liggéey jox ko kee ba liggéey ba jeex bu liggéey ba jeexee neen diw sans borom ba nag door a ñëw ñuy ñaan suñ borom bi nag liggéey bii nga xam ne moom ñu ñuy liggéeyloo di ko liggéeyloo Cheikh Ahmadou Fadel yàlla na doon ay liggéey liggéey yoo xam ne ni sëriñ bi da koy jox mu yàgg cee am ndam ak njabootu maam Cheikh Fall gi yëpp nag ndax liggéeyal sëñ Tuubaa moom kenn ku ci nekk war na la ndax nee na woon kat ñetti yi fi baax passé wut alxuraan addis ak lislaam te nee na sama borom kat jox na ma yooyu yëpp may na ma ko te dootu ko nangu na sax ali lislaam indal kitab te maam Cheikh ma Fall mi ñëpp di roy liggéeyal Serigne Touba képp moom la rawe ñëpp di ñaqal Serigne Touba guddi ak bëccëg jëloon jom ja nag ak ngor gi teel ko boppam ndax nee na jom ak ngor lañuy ñuy liggéeyale Serigne Touba waaye su jom ji ak ngor ji dañee rek dootoo mën a liggéeyal dara Serigne Touba suñu sang bii nag saay su déggee ndigalu Serigne Touba na ko waajuram woo daan defee nga xam ne fa mu ko déggee foofee lay daal di jóge moom uti liggéey booba moom Cheikh Sakor Fall te su demee duñ ko mbaaral du toog ci ker ca naaj wa digg naaj wa lay toog comme ni ko suñu sang bu tedd bii defee noonu la ko waajuram wu tedd wa daan ko daan ko defee ba fiig liggéey ba di egg amatul fenn soxla soxlawul kenn ku ñëwit wax ko ne ko lii laa ittewu lu dul liggéeyub Serigne Touba bi sang bu tedd bii nag loole la roye waajuram wu tedd wa yàlla na fi yàgg lool te wér te Serigne Mouhamadou Bachir yàgg ko liggéeyloo Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg ko liggéeyloo mu ci woo ñëpp nag. la teewaay bi damaa ñëw ci ndigal li wuyu si woote sëñ bi si néegul sëñ Fallou Fall mu sëñ Abdou Sakor Fall ci loo xam ne sëñ Mountakha moom sëñ Bassirou moo ko jox xalifa central di Mouride ñëw wuyu si ko ñun mbokki taalibe yëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha liggéey maam bi mu sëmb naa ko àggale ba def ci lu kawe njortam topp ci Cheikh Mouhamadou Fall Fall ibnu sëñ Fall ibnu sëñ Abdou Sakor Fall di ñëw si ndigal li wuyu si ko comme ni ñu ko waxee rek Baye Fall moom amul lu dul ndigal parce que boo dégloo sëñ Ba Diakh day wax naan lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab du bëggee ni boppam njëriñ jox ko te defalu ko lëf. Abdou Aziz la maa ngi bàyyi ko Touba Palen Touba Palen waaw si ndigalu Cheikh Modou Fallou Fall ibnu Sëñ Abdou Sakkoor waaw moo moo fi woote liggéey bi waaw ne ne ku ko yaakaar képp ku yaakaar maam Cheikh Fall la nga ñëw si liggéeyam bi loola wala sama teewaay fii waaw. waaw fii de dañoo ñëw pour route tool yi waaw lépp lu fi waajal nawet bi daal kon ni nga koy defee rek chaque année waaw ñu ngi koy waaw waaw waaw ñu liggéey bu baax a baax ñu ngi si liggéey bu baax ñu ngi si liggéey waaw waaw gars yi li ma ñu sondaa ñu gën a góorgóorlu ndax daf na ma Aziz mu ne ma moom tudd Aziz Modou Moustapha mu ne ma Abdou Aziz mu ne ma waaw mu ne fii de lu fi waay ñaan am ko lu fi waay bëgg boo ñëwee fii di nga ko am moo tax ma ne ko fàllu kon nag bu bés ba jotee dinaa bàyyi lépp tëngeej laa jógee ñëw fii si liggéey bi sant liggéeyal sëñ Bamba rek barke maam Seera Fall yëg na fële manifestation fa di taal ay osan ak ay station ñu ñu ñëw si liggéey sëñ Touba bi ñu ngi ñaanal suñu jàmbaar ji nag sëñ Fallou Fall Abdou Sakor gis nga ëkk xam nga ne ëkk yi bokkul ak taal station di kontaan si yéen nag sàkk yaay def ba ça man noo koy sëy laa tudd Touba Touba waaw joxe ndox def lépp rek liggéey bi moom moo ñu tax a jóg ñu def lépp rek. laa jógee. liggéeyal sëñ Cheikh Rafal incha allah moom rek ñu tax a jóg sëñ bi dong waaw liggéeyal sëñ bi dong tax a jóg. la la ñaanal taalibe yëpp bépp aaj bu fi waa indi daal yàlla na faju si barke Sëriñ Tuubaa maam Sëriñ Fall fii am na adduna am na àllaaxira ku fi ñëw da nga am adduna da nga am àllaaxira kon Serigne Fallou nee na mi ngi ciy woo ñëpp di ci woo bokkam yëpp di ci woo taalibe yëpp di ci woo jullit yëpp